nan nga gisee booy yi wax nga ko léegi ndax am na booy yoo xam te ne ñu ngi ñëw booy yu mais booy yooyu noonu nan nga leen gisee ak ñaata booy yoo xam te yaa ngi di gis xam ne ñii ay avenir u làmb nga ne bari na fi. parce que boo fi naree cité day bari. mais am na ñuy suivre. waaw am na ñu may suivre ba fan yële passé am naa ko ma jotoon suivre muy euh, je crois ma soq loxo ma magu soq. moom moo doon nettali xawma ay temps ba ñuy bañ na julli yaa ngi dégg nee nañ dañ doon sàcc di daw di dem di julli xam nga loolu wax googu noonu marqué ma trop waaw wax googu ma daf ma marqué parce que mu ngi naan dañ leen doon tere ñuy julli si je me rappelle très waa jatli ah waaye ma toog di ko seetaan ndeysaan sama ma yëg dara sama biir xol ma ne ndeysaan kon kii maanaam mu ngi doon daw di dem di julli ji. waaw waaw. léegi affaire boobu marqué ma nag yaa ngi dégg maa ngi daal kii daal dina nekk champion bu ko gëmee tuuti. waaw bu ko gëmee ak rakkam ji yépp ah. waaw affaire bi ngëm-ngëm la kenn moomu ko.